mënut a ñàkk ndax nee naa la fi mu nekk nii am na école yu ñu tëj ndax amul jàngalekat mais ñun dañ jàpp ni nguur mais dafa war a di planifier toog ba école tijji ñuy wax ay recrutements spéciaux ci contexte bi nga xam ni ñoo ngi dem ay élection ñun loolu d'accord ñun lu ñu gëm moom mooy nañu dellu si si li ñuy wax les fondamentaux en matière de recrutement ñu ci bari ci ñun toog fii bi ñuy dugg ci système bi dañu dem université ba am suñu ay diplôme académique def concours dugg ci école ñu former ñu ba ñu am diplôme professionnel ñu génne ñu